an rasulillahi mu jëlee ci yonent yàlla bi sall yàlla doolu ko allahu yàlla alayhi si moom wasalamatu doolu ko musal maa yer wi ci loo xam ne ko nettali an rabbi mu jugee ci boromam tabaraka barni wa taala kawana kon xadis bi xadisu xudsi la ndax yonent bi ci yàlla la ko jëlee yàlla si boobu mooy wax am na Abbas moo ko nettali jëlee ko ci yonent bi yonent bi jëlee ko ci yàlla yàlla nee na wax na moom yàlla ne inna laa naka yàlla كتب بننا الحسنات يرفر يا وسيات يا suma bayyana topp mu leeral daalik loolu yàlla dafa bind yu baax yi bind yu bon yi daal di ko leeralal jaam yi lu bon ñëpp xam nañ ko sàcc ku ne xam na ne bon na loo jàngadi jàngadi xam ne sàcc baaxut fen baaxut njaaro baaxut lu bon daal mooy loo xam ne boo koy def bëggu ku la ci fekk ku la ci fekk nga am gàcc lu baax nag moom boo koy def boo bëggul ku ci fekk it ci fekk doo am gàcc moom kon lu bon mooy loo xam ne ni yaa ngi koy def te su ko nit ñi xamee nga am gàcc bëggoo ko ko wax bëggoo ko la ko xamal loolu lu tax nga di ko def xam nga ne baaxut mu waaxoon ku la ko waxal it doo am gàcc waaye loo xam ne ku ko wax nga am gàcc ba fa bon moo tax yàlla leeral na yu baax ak yu bon yëpp fa man xam ma kuy teewoo bi xasanatin ci lu rafet fa lam yaamalha te defut ko katabaha mu bind ko allahu yàlla indoo fu moom xasanatan muy yiw kaamilatan bu aji mat sëkk su fekkee da ngaa yittewoo jëf ju rafet waaye defoo ko yàlla bindal la ko tiyaaba gu mat sëkk da ngaa yittewoo lu rafet waaye defoo ko yàlla bindal la ko tiyaaba gu mat sëkk ndeysaan ki nga yàlla ko baax de waaw man de mbébét naa am xaalis di saraxe nangam ak nangam yàlla dana la bindal ci yàlla ko am xaalis di saraxe nga mbëbet jaamu yàlla defoo ko yàlla bindal la tiyaabaab kuy jaamu yàlla jaamu yàlla googu kon soo yittewoo lu baax yéene ko waaye defoo ko yàlla def lay bindal tiyaabaab jëf ju baax jooju ak baax wa in hamma ndem yittewoo na bihaa ci moom fa amilaha mu def ko boo yittewoo lu baax rek def ko katabaha bindu na ko allah weera andoo fu moom nag yàlla su dee bindal lu baax rek fu moom la koy bind ndax yàlla lu baax la am daana bindal ashara xasanaatin fukki yiw ilaa sab'i mi'ati da'fin ba juróom ñaar téeméeri ful dara bindal fukk yu baax benn bu baax nga def de yàlla bindal la ko fukk mën na laa bindal ba juróom ñaar téeméer ak baax ilaa adaafin ba ci ay ful kasiratin yu bëri mën na la koo bindal sax lim boo xam ni am yàlla rek a xam nu mu toll wala loo xam ne amul lim far kon soo yitteewoo benn bu baax defoo ko waaye yéene nga rek yàlla bindal la tiyaabaab ku ko ku ko def dégg nga sooy teew lu baax def ko yàlla fukk la lay bindal ba juróom-ñaar téeméer ba lu yàlla kon loo ci déggee yéene ju àndut ak jëf yéene ju ànd ak jëf moo ko gën a foor danga yéene def lu baax waaye yàlla dogalul nga def ko <clears throat> xemawut ak ku yéene def lu baax ba pare far ko def yow yéene woon nga jihaad waaye defoo ko mën nga am tiyaay baab ku jihaad de waaye nag mën nga am tiyaay baab ku jihaad waaye ka jihaad moo lay ëpp tiyaay ba ndax moom duñ ko bindal benn rek dañ koy bindal fukk ba juróom ñaar téeméer ba lu soob yow ñu bindal la benn rek yow ñu bindal la benn lu moy nag koo xam ne nii daf laan def lu baax far am ngant kooku moom moo ko def benn lañ yow da nga laan dem ci jihaat ba tey nga am ngant moo la teree dem yaa ngi ñu dem yéen moom benn tiyaaba nga yàlla bindal rek la lay bindal mel ni teew fa daal dégg nga moo tax yéen sallallahu alayhi wasallam daan na xare ji léeg mu wax ñoom ànd ak na leen am na ay góor yu nekk Medina xuur bu ngeen mën jaar. ñu ngi ñu ngi mel ni ñu ngi fa ànd ak yéen ndax ngàntaa leen téye lu ngeen mën a am ci tiyaaba dañ koy bokk ak yéen parce que ngant moo leen téye kon foofu ñaara fa am koo xam ne dafa yéene lu baax lii rek waaye nekkutoon daan ko def defu ko dana am benn tiyaaba su fekkee nag moom <clears throat> daf daan def lu baax lii tey mu am ngant moo tax deful ko waaye yéene na def ko kooku moom moog ñi ko def ñoo yemoo fukki lañ koy bindal ba juróom-ñaar téeméer. ba lu soobee ñaar yooyu bokkuñ yàlla jël naa bàyyi xel yéene lu baax waaye bokkutoon nag say jëf defoo ko benn tiyaaba lañ lay bindal daa nga def dara tey mënoo koo def ndax ngant dégg nga ngay waaye waaye nag léegi sa yéene mooy def ko waaye am nga ngant loo ko tey def jàppal ne yow fukk lañ lay bindal ba juróom-ñaar téeméer ba lu soobee ndax yaa kii ko def yéene xemoo benn maqaam <laughs> ku yéene lu baax yi def ko loolu la fukk lañ koy bindal ba juróom-ñaar téeméer ba du soob kon ku daan def lu baax tey mu am ngànt defatut ko ak koo xam ne nii dafa def dafa yéene lu baax def ko ñoom ñaar ñoo yem ci <laughs> fukk lañ leen bindal ba juróom-ñaar téeméer ba ku yéene lu baax nii rek loo xam ne bokkutoon ci ay jëfam te defut ko nag benn lañ ko ci bindal benn ci comme ku ko jëf benn yoon daal loola waral boo dee ndaw. ci jaamu yàlla boo màggatee yàlla daf lay bindal jëf yi nga daan def pour ba ngay nekk ndaw nga xam ne ba nga màggatee mënatoo ko waaye yéene nga ko dañ la koy bindal loolu war a yonent bi jàngal ne ku daan kuy jaamu yàlla feebar dab ko wala tukki wala màggat yàlla daf koy jox tiyaaba gam doon def njëkk muy am ngant <clears throat> ndax moom ngant akuti ak noonu jaamu yàlla am tukki mu la dab mënatoo ko lay bindal mais yaa ngi continuer ci jaamu yàlla boobu feebar la dab mënatoo ko yàlla daf lay bindal tiyaaba ba léegi yaa ngi def jaamu yàlla yooyu ndax ba ngay wér yaa ngi ko doon def feebar rek tax mënatoo koo def kon yàlla du baax ku am ku am ku mën a rafetal moom yàlla waaw da ngaa màgget ñu ko bindal moo tax boo nekkee ndaw góorgóorlu waaye daan na wax ne boo nekkee ndaw góorgóorlu ba dikkal la am lu baax doo am lu baax bu mukk ndax jamono bi nga war a def lu baax man ko. defoo ko ñu bëri na dañuy jàpp ne ndaw warul baax fekk ndaw ci ngay liggéey li ngay liggéey waaw ci ngay liggéey li ngay liggéey boo màggatee boo mënatul sax dañ lay continuer di ko bindal kon boo nekkee ndaw liggéeyoo fooy amee lu baax mag ñu baax ñu ba ñu nekk ndaw lañu baax gis nga mag moo gis mu amee jikko ju baax ba mu nekk ndaw la commencé woon jikkoo mu màgg màggat ci man shabba ala mm-hmm. ku màgg ci dara rek bay jaaw ci boo màggee bu sa ndaw saaga nga ko def soli keroog carte day màggat di saaga rek ba léegi di carte léegi nga dox ba si kanam gis paa xam ne ni war na la mën na laa jur nga toog si jotaay di carte léegi mu saaga wax ji ñàkk fayda dañuy rus waaye ba mu nekk ndaw rek la ko miinoon moo tax mu màggat ci kon <clears throat> ndaw war naa miin lu baax loo nekk ndaw màggat ci rek xamal ne loolu si ngay dajeeg sa borom kon war ngaa miin lu baax ndax nga màgg ci màggat ci dajee ci ak sa borom waaw waaye boo sàgganee sa ndaw liggéeyoo boo màggee rëccu rek borom naxu waa di daan jàngal na lu am solo mu ne mënee taab fii si xarihi yatamatta fii kibarihi boo sonnee ci sa ndaw boo màggee noppul waa aljana sax dañ leen bindal mooy dégg nga mbégte yii ngeen am tey yéen ko jëlee ci njàqare yooyu doon leen dal ci àdduna ngeen muñ laa yi ngeen nekkee tey yéen ko jëlee ci coono bi nga xam ne mooy loon dal ci àdduna nga muñ kon coono moo njëkk fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran coono yomb yomb tegu ci waaye na da nga te doo baa ngeen naroo njub waaw kon yow ndaw li góorgóorlu ci liggéeyal yàlla boo defee benn ñu fay la juróom-ñaar téeméer balu soob yàlla بلا ما قدلا دير ديكر ولا <coughs> ما قدلا ديكر دور غن غرغور يلا هون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة أنا دوارة ما نياري لطلة يبن كتن سق yàlla daf leen bind ci lot mënu leen dara gannaaw lot ga mu may leen kàttan gannaaw ga mu dellewaat leen ci lot ak ak béjjaa loolu ci topp dee ak lot ma nga ci liggéey dara mënoo ci liggéey dara ci jamono kàttan ci nga mën a liggéey dara te mooy jamono ndaw mhm. jamono boobu nag boo ci xeebee sa bopp ne xeeb naa sama bopp ci nekk wëlli yàlla xeeb naa sama bopp ci nekk borom xam-xam xeeb naa sama bopp bopp ci nekk borom alal xeeb naa sama bokk bopp ci yéeg si daraja nangam parce que ndaw laa doo xam dara jamono bi ngay nekk ndaw ci ngay liggéey wilaayatu ci ngay liggéey xam-xam ci ngay liggéey alal ci ngay liggéey mm, nguur ci ngay tabax lépp loo bëgg a tabax boo xeebee sa bopp si jamono jooju mënatoo xam dara ndax foofu nga am kattan pour def bu foofu paasee mënatoo dara mm-hmm. bul dégg maqaama yu kawe yu wëli yàlla yi nekkoon ak jaamu yàlla yu fooree nga ne yow ndaw nga xeeb nga sa bopp déedéet jamono bii nii lañ ko liggéeyal ko foofu dégg nga bul gis borom xam yu mag ya nga ndaw nga mën a seen daraja déedéet jamono bii ni nga toll nii ci lañ ko liggéeyoon mm-hmm. liggéey ko foofu liggéey ko foofu boo liggéeyee rek yàlla jox la mën nga leen a ndaw sax bul gis peut nguur yi nga ne man ndaw laa mënuma koo jot jamono bii ngay toll ci lañ doon liggéey seen nguur gi ñu nekkee tey liggéey ko foofu man saara ala darbin wasala la taqul qad dahabat arbabuhu man fa kullu man saara ala darbi wasal bul wax ne gars yi dem nañ ah lii de ña ko moomoon dem nañ jeex na lii kenn mënatu ko am déedéet ku jaar si yoon wi rek yegg ay nit rek lañ xool dañoo judd ne ngalee jooy comme ñëpp xamuñ dara wala wax rajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna cheyan yàllaa leen génnee seen biir yaay xamu leen dara kon ku dem bañ na la borom xam-xam dem bañ na la wëllu yàlla bi dem bañ na la monsieur le président dem bañ naan kilifa gi dem bañ naan sëriñ bi dafa fekk daf ko liggéey ci jamono ndaw liggéey rek la li misli hada fal yamal al amilun yàlla nee na lu mel nii ku ko bëgg mooy lu baax lu ne rek boo ko bëggee liggéeyal wi dalika fal yatanaafasil mutanaafisuuna alquran nee nañ lu baax lañ war a njëkkalante saari amu ila maxfiratin min rabbikum kursu leen kursu leen jëm ci jéggulu yàlla dem ak ci lu baax fastabiqul xayraat na ngeen njëkkalante ci yu baax yi ci jaamu yàlla yi njëkkalante nag mag ko ko mën a war a màggat man ngaa màggat muy course loolu yëpp wane na jamono bi ngay nekk ndaw liggéeyal liggéeyal ndax boo màggatee la nga doon liggéey ci ndaw moom moo lay fekk ci mhm. jamono ndaw yaa ngi liggéey ñu ngi lay bindal tiyaaba nga màggat mënatoo ñu continuer di rek ko liggéey mhm. kon <clears throat> ndaw war naa góorgóorlu bañ a xeeb boppam ci dara nag ci dara ndax ashabaabu barakatul umri mm-hmm. ndaw mooy barkeb dund mooy li gën a barke sa dund bi boo ko xeebee rek perte de mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu noon ngéej yàlla delloowaat leen ci ndaw kon danañ góorgóorlu bu bëgg de ashabaabu barakatul umri waxtum ndaw mooy li gën a barke ci sa dund bi bu ko sànq bu ko xeeb islam ay ndaw yàgg nañ ko taxawal mhm. usaamatu bun zeyd xale la yonentu jiital ko ci mag ñoo xam ne aboubacar omar mu ngi fa ci ci armée mhm. dégg nga gestu <coughs> gestu boobu gannaaw ga avant muy dem yonentu bi génn na àdduna usaamatu yonentu da koo jiital wax nañu ne leen maa ngi ko jiital yéen a ngi wax ay wallaay yelloo na nekk njiit mhm. kon nekk njiit ci diine wala ci nangam tool ajiwul ci wàllu at yitte rek la boo yitte boo amee yitte rek di acteur ba waaw asaabul uxduud yonentu jàngal nañu seen mbir seen histoire siw na acteur ba ndaw la ndaw ndaw mooy acteur histoire boobu ndaw loo xam ne buur bi da koo jël pour jàngal ko njabar pour sànq ko ndax xam nga buur yi dañuy bëgg utiliser nit ñi rek waaye léeg-léeg nga bëgg utiliser nit far mu utiliser la far léeg-léeg nga jug pour rëbb nit far mu rëbb la wala kam man qaama li yas eh, yasaa li yastaada fastiida bëri na ku jug di rëbb far ñu rëbb ko moom mm-hmm. wala mu yalqa xayra xuffay xuneynin daje wuta lu may ñaari dalli xuneynin su ko defee xale bi yoon bi jaar pour jàngi njabar gis na fa benn labbi boo xam ni dafay wax ci wàllu diine mm-hmm. xale bi di toog di déglu labbi bi ku yàlla bëgg a jubal kenn mënu koo tee jub addina mm-hmm. yëpp taxoon pour gàllankoor ko mu jub xale bi ba muy déglu labbi bi <coughs> bu demee day yéex dem ci njabarkat bu demee mu dóor ko bu bu ñibbi yéex a seen waa kër bu demee ñu sonal ko defee labbi bi ne ko moo tax fenn woo xam ne ni daf lay dimbali ci yenn yi léeg-léeg mu jariñ labbi bi ne ko boo demee te eh, eh, eh, ci njabarkat bi hmm, dégg nga dang naan ko suñ waa kër ñoo ma téye woon boo demee ci labbe ba seen waa kër ne la njabarkat bi moo ma hmm. moo te moo téye woon moo ma gàllankoor moom la nekkee di jël xam ci labbe bi di jël xam ci labbe bi bu mujj raw sëriñam labbe bi ci boppam moo hmm. ko xamal na ko doom tey yaa ma sut kon sëriñ léeg-léeg mu xam ma xaama taalibeem loolu ku ko weddi da ngaa jàngul xadis boobu mhm. waaye xadis boobu it kumpaang fa xam kumpa karaama wëlli yàlla feeñ na fa mhm. xale boobu dafa mujj toog benn bis daal ne yàlla yàlla su fekkee benn rab daaba gu mag nekk ci yoon wi gàllankoor nañu mënuñoo dem mu ne yàlla su fekkee diine làbbe ji moo gën leen njabarkat bi nekkee su ma sànnee na rab yi dee nit ñi doxi seen soxla yi su fekkee nag njabar baa gën bu rab wi dee mhm. mu sànni rek rab wa dee mu xam ne diine làbbe ji moom moo gën dégg nga yàlla mujj ko may boo gumbaa bu la raayee nga wér waaye daf naa yàlla rek ay faj na mhm. di def ay karaam yu bari mu xel bi waaw fekk làbbe bi nag waxoon na ko ne ko danañ la nattu waaye buñ la nattoo bul ma bul ma weer ndeysaan yàlla xamal na ko doon dégg bu ko defee xale bi dem <clears throat> ba benn waay boo xam ne mu ngi woon ci buur ba dafa gumba dégg ko ñëw mu ne ko boo gëmee yàlla ma raay la nga mu gëm yàlla mu raay ko mu wér wan ko ne yàlla rek la faj nag kooku far jaaree fa weddi buur bi nga xam ne dañoo xoote yàlla hmm. buur bi. fexe wax ak waa jooju waa wan ko ne ko moom gëmatul ko yàlla la gëm mu mbugal waa jooju jël si daal di ko xar moom dee waaye avant loolu mbugal na ko ba waa ji wax ko ko xale bi moom moo ko faj mu ñëw ci xale bi sonal ko sonal ko ba xale bi wax wax ko ko si làbbi bi la ko jëlee mu ñëw ci làbbi bi ñu moom noonu waaye xale bi mooy acteur ba xale ba dañ ko yóbbu ca ca ca doj wa wu kawe pour sànni ko suuf mu ne yàlla yàlla nga ma leen fegal ci nu mu la neexee yim bi maa shi'ta doj wi rëjëj loo ñëm ñëm ñu daal di dee xale bi delluwaat ci buur ba ñu pare pour yóbbu ko ci géej gi ray ko mënuñ ci dara daal gi këpp ñoom ñu dee xale bi delluwaat ci buur xale bi nag boo mu bëggee rey da nga jël sama fett gii nga génnee ko sama tunkaar gii nga dajale ni ñëpp takk ma nag su ko defee ne bismi rabbil gulaam maa ngi commencé si turu borom xale bi boo sànnee sama fett googu danaa dee parce que xale bi xam na ne boo waxee loolu nit ñi ne xam ne borom xale bi mooy dëgg waaye buur bi nekk mënul dara mënul sa rey xale bi loolu la ci bëggoon su ko defee nag buur bi def loolu dajale ñëpp daal di wax bismi rabbil gulaam sànni fett gi xale boobu daal di dee ñëpp daal di gëm daal di gëm yàlla ne gëm na yàlla xale bi fekk xale bi loolu la ci bëggoon moo tax ñu ne nit léeg-léeg mu def loo xam ne ni wala mu wax loo xam ni moom bakkanam man na cee def su fekkee loolu dana tax nit ñi dugg ci lislaam mm-hmm. loolu du xaru nga xale bi loolu la def mm-hmm. gis nga ni ko yàlla histoire boobu bu ko defee ñëpp dugg ci lislaam buur bi mujj nag di gas di taal nit ñi di leen lakk si biir safara ci ndax nee na nit ñi weddi nañ ko gëmatuñ koy gëm nañ borom xale bi fekk xale bi loolu la bëggoon histoire boobu histoire boobu acteur ba dama ne xale la loolu yàgg na am buñ njëkkoon xale daan na encouragé sama mag ñi ci muñ ci yàlla ndax yooyu daan na am ñu jël benn jigéen di ko lakk jigéen gi bañ koy lakk mu ngi boot doom ji dégg nga mu bañ a dugg di diisu di xëcc xëccanteeg ñu koy lakk xale bi ne ko yaa umma isbiri fa innaki alal xaq yow sama yaay muñal la yaa nekk si dëgg gis nga donc xale te yow baax de kon su fekkee yaa ngi def lu baax si jamono ndaw boo màggatee loolu lañ lay bindal boo feebaree loolu lañ lay bindal boo amee ngant mënatoo ko la nga doon def rek lañ lay bindal da ngay mel ne ba léegi yaa ngi continuer di ko def kon nañu def lu baax ci koy man way na xam ne mi toona bi say atin lu ñaaw falam yaamal xaata defut ko katabaha bind na ko allahu yàlla indoo fu moom xasanatan yiw kaamilatan bu mat su fekkee dangaa yittewoo lu ñaaw waaye defoo ko yàlla bindal la tiyaaba gu mat waaye nag foofu jar naa bàyyi xel mooy boo yittewoo lu ñaaw yàlla tax nga bàyyi ko mm-hmm. di def nga sax leen lu ñaaw waaye lu ndaw la nga bàyyi bàkkaar bu mag ba te mënoon nga koo def ngir yàlla yàlla da lay tiyaab la waral waa ji bëggoon mbokkam mu jigéen ma hmm. sàkk ko ba soon mu bañ jamono ñëw jëfe mu ne ko daal pour mu dimbale ko foo mu njaaloo moom jigéen ji daal di nangu mu <laughs> ba daanaka mën ngaa wax ne luppam yaa ngi ci kaw lupp jigéen yi jigéen ji ne ko ragal yàlla bu bëtt jaaro bi lu may ci àqam hmm. maanaam bul ju joteeg man lu may ci eh, dëgg moo ragal yàlla bàyyi ko lam ko joxoon ci alal bu defee daal di jóg kooko xam nga ne lam jot a def am na lu am na bàkkaar mhm. waaye bàkkaar bu ndaw la mënoon naa yegg ci bu mag ba nag yeggut ca moo tax yàlla bindal ko tiyaaba euh, ba mu nekkee ci xat-xat dafa yàlla ci barki loolu mu defoon yàlla di génne ko ci xat-xat boobu mhm. <coughs> mënoon naa njaaru te njaaruwul waaye nag su fekkee dangaa yittoo lu bon ñàkk pexe rek moo tax defoo ko def nga sa effort yëpp pour def lu bon loolu waaye yàlla ko dogalul da nga am benn ba benn benn bàkkaar dégg mhm. kenn du bindal tiyaaba de bàkkaar lañ lay bindal bàkkaar ab ku def lu bon lañ lay bindal mhm. mu ne kuy bon deful ko danañ ko bindal tiyaaba te mooy su ko bàyyee ngir ragal yàlla mhm. waaye su fekkee nag ragal yàlla taxul mu bàyyi ko kooku dafay am bàkkaar da ko mun def loolu la yonent wax ñaari julit bu buñ dajee seen jaase karaye kañ la yëpp safar lañ jëm ñu ne ko waaw kiraay rek xam nañ ni ko dugal safar na dafa rey julit hmm. waaye kañ rey lan moo ko dugal safar yonent ne parce dafa bëggoon a rey du ko dafa yéene def lu bon rek hmm. reyut nit dafa yéene rey nit waaye yàlla dogalul ko mais su ko mënoon da koy def moo tax mu am bàkkaar ku rey nit kon ku yéene def lu bon te defoo ko da ngay am bàkkaar bu dee soo ko mënoon def def ko waaye boo ko bàyyee te yàlla rek tax nag mhm. kooku la nga am ceeba wayna xam ma namitoona bihaa ci lu bon fa amila mu jëf ko katabaha bind na ko allah yàlla sëy atan muy lu ñaaw waaye tan benn mhm. boo yéenee benn bu bon daal di ko def yàlla bindal la benn benn bàkkaar waxut fa moom de mhm. yàlla bindal la benn bàkkaar waxut fa moom de lu ñaaw مر رحنا مبين لا بكر حديث بي رواه نت البخاري البخاري ومسلم ومسلم في صحيح ما سن تيري بير بهذه الحروف تي الحرف ني نكون دي ديسان يتولو بعد فوكو بن تياب يتولو بعد دفكو ولا دا نكو ديف سوات اي غانتار تي فوك تياب بجرو ميا تيمر بلو سوبيال يتولو بن دفوكو تي الله تخ موتا دفوكو رجل يالله ñu bindal la yiwu mat yittewoo lu bon def ko nag ñu bindal la benn bàkkaar yu baax yi ci yàlla lañ koy bind waaye yu bon yi moom lañ koy bind noonu mu ne fantur xoole yaa xëy sama mbokk ma faqane la yàlla yàlla dëpp la njub ay yaak ak yow ilaa azimi lut fi laay jëm ci ñëwent yàlla gu màgg gi taala kawe na wa taamal setantalal haadi alfaas yi baat wa xawlu ak waxam jum naa indahu fa yàlla lu baax daal ci yàlla lañ koy bind isharatun junj la ilal i'tinaay si sonne bi ci moom day wax ne yitti woon na loolu maanaam <laughs> jëf ju baax jooju fonk na ko wa xawla kaamila kaamilatan bu mat dañ ko bindal tiyaaba gu mat gis nga xasanatan kaamilatan xasanatan dégg nga kaamilatan lay wax bu dee nag mm, uh, benn yiw la daan bu mat bu ëppee benn moom lu bëri la lay doon dégg nga kooku li tàkkee di ngir feddali wa ci itidaa itidaa ak ak sonne bi ci moom day wax ne yàlla lu baax dafa la koy fay fay gu mat sëkk sawar na ci it waxaala wana fi siyaari ci lu ñaaw ëlti yi nga xam ne xam ma yitte woon a biyaa ci moom su ma taraka topp mu bàyyi ko nekkati ba bind na ko allah yàlla ndoo fu moom xasanatan kaamilatan yiwu mat lu ñaaw loo bëggoon def ba ko yàlla jox la ci tiyaaba gu mat ca moom fa ak daa mu fedd la ko bi kaamilatan ci lu mat way na amila bu ko defee ne kataba mu bind ko sayiatan waahidatan benn bu ñaaw fa ak da mu fedd li taqlila ak néewam bi waahidatan ci benn wala mu yàkkidaa feddloo ko bi kaamiratin ci lu mat boo defee lu bon mu bindal ko sayaatan waahidatan benn pour wan na lu tuuti la waaw lu baax la naan xasanatan kaamilatan yiw gu mat waxut xasanatan waahidatan de wu mat lii day wane yërmande yàlla li laa ñeel yàlla alhamdu cant wa met ak xewal subhaanahu tudna wa salam laa tuxsa laa nuxsa duñ takk sanaan tagg alay ci moom yàlla mënuñ ko tagg ba matal wa billaahi ci yàlla rek la nekk التوفيق ساس إن أريد إلى الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولي ونب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته